waar la waaye tamit mbir la moo xam ne mu metti la waaye tamit mbir la moo xam ne béttuñoo yéen kaay gi de Les Échos nee na député ak kii nga xam ne mooy Mamadou Niang jamono ji waa dikk ñoo ngi leen di wër division des investigations criminelles yéen kaay gi nag nee ñaari député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi jamono ji gaay yi ñoo ngi leen waaye gisuñu leen yéen kaay gi de Le Quotidien nee na Amy Ndiaye ñi bi intouchable la Amy Ndiaye ñi beeg provocation yi nga xam ne def na ko ci assemblée nationale ak saaga yu yi nga xam ne saaga na ko fa te nag jamono jii dara du ko ci fekk yéen i kaay gi di leen foo nee na bu ngeen xëyee ñu leen ëmb bi nga xam ne Amy Ndiaye ñi bi ëmboon na ko ëmb ba yàqu na bu mu leen bet maanaam bu ñu leen waxee ne leen Amy Ndiaye ñi bi dafa daal di avorté bu mu bett kenn yéen i kaay gi di leen foo moo xëy ñu ko xibaar yéen i kaay gi di la ñaari député yi nga xam ne ay agresseur lañu jamono ji ñoo ngi leen di wër waaye nag dañoo daw yéen i kaay gi di réew ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias meerum Dakar député moom nag nee lu baree bari xew na assemblée nationale procureur na pata pataaral Barthélémy Dias nee ji nga xam ne ñoo ngi fa doon agressé Mame Diarra Fam jamono joojee procureur kenn dégg ko mu wax procureur nag jamono ji am na lu ko sëkk maanaam mu lijjante François Mancabou mii nga xam ne Bart nee dañu ko faat ak Fulbert Samba loole la procureur war a lijjante yéen kaay gi Samuel Sarr la ci coalition Yewwi Askan Wi dañuy siifaate ba pare di teg jigéen ñi fitna yéen kaay gi l'Observateur Khalifa Ababacar Sall ma ngi wane njàpp na la ma ci député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi waaye moom xaafa nee na candidat la ci élection présidentielle 2024 bu ko kenn lam-lamee yéen kaay gi di Les ak Vox Populi nee na gi nga xam ne moo ëmb taskatu xabaar yu Sénégal di kap jamono ci kasu koy génnee Ibrahima Lissa Faye ak xam ne ñoom la àndal nee na nag jamono ji sa fini julli tubaab maanaam nañu leen jàpp ñoom journaliste yëpp tëj leen ci kasu bi ñu rey leen yéen kaay gi di Source A nee na état bu Sénégal na lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti milliards hôpitaux yi bërëbu fajukaay yi yéen kaay gi la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu ministère bi ñu dénk wàllum développement communautaire natal nañu ko ko ko ci cent vingt na ay d'Italie yéene kaay gi di xëy di ko dëggala ndax nee na docteur Annette Seck mi nga xam ne mooy njiitul conseil départemental bu Sédhiou alxames ji ñu génn dajale na mboolem maire yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Sédhiou ngir nag ñu waxtaan ci seen xool ana nan la ñuy waaye nag yemul foofu li mu bëgg mooy fédéré mboolem département yi nekk ci région bu Sédhiou ngir développement Sédhiou maanaam département bu Sédhiou département bu Bounkiling ak xabaar naan ñu Serigne Bassirou Gueye mi fi nekkoon procureur ay jamono yóbbu nañu ko OFNAC waaye na ñu baree bari ŋàññi nañu ko ba fa ŋàññi yem yéen kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Thierno Bocoum nee na nag bii moo nekkaat beneen yoon boo xam ne toroxal nañ ñi nga xam ne ñooy waa OFNAC yéen kaay gi de Le Soleil nee na Promovilles la ñoom nag nee nañu gouvernement bu Sénégal créé nañ si lu toll ci 42 000 emplois si juróom-ñaari at yi yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na réew mii di Sénégal démb ginnaaw match bi doon dox diggante Sénégal ak Angleterre réew mi soree wutoon ak réew moo xam ne askan wa dañoo nekk ci dëcc yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na Angleterre ni ki ñetti bal ci dara la dóor Sénégal yéene kaay gi di enquête xëy di ko dëggal nee na ñi nga xam ne ñooy sunu gaynde yi dañu leen a désarmé maanaam arme yi nga xam ne moom la sunu gaynde yi yoroon ñi nga xam ne ñooy waa Angleterre ñoo ko nangoo Aliou Cissé nee ñetti bal ci dara loolee kenn mënu koo comprendre yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Edouard Mendy nee nag niveau kaay gi di 24 heures ah, nee na Sénégal ni ki démb mën a la nooy na lool lool lool lool équipe nationale bu Sénégal démb nooy nañu lool ci kanamu Angleterre ah, yéen a kaay gi di bés bi nee na en tout cas li am ba te muy dëgg mooy anglais yi si boppam dañ ñoo mën yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Kalidou Koulibaly nee na Sénégal nag ah, dafa daal di dal ci équipe bu Angleterre boo xam ne maanaam bu rëy la yéen a kaay gi di wal Fadjri Aliou Cissé mi nga xam ne mooy entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal nee na mbir mi nañu ko assumer nañu ko assumer anglais yi